ak kan ajaratu Cheikh Ana Seck mu Cheikh El Hadj Samba Ndoukoumane Seck mu El Hadj Cheikh Dumbaan Seck gan nag muy meññitu xale bii di sunu doom di sunu jarba ànd ak mi ngi toog sama càmmoon te ñu xamee ko ci booy ñang loolu yëpp dara xam ndax man suy la bi seyin aadaahu loo réeree lu ne da koy cof waaye doy na rek ba ma tuddee famille tudd Ndogol tudd Boy Niang tudd Aana tudd Cheikh Yérim Ndumbaan njabootam ngi toog sët yi maa fi ne man Cheikh Yérim Ndumbaan di xalifaam ak Cheikh du Ndiaye Seck di sama parti yi ñoo ngi toog ñoom su ma ci tuddee Cheikh su tudd ci Samba Loukman na ñu yóbbaale ñëpp waaye nag xale bii ma uuf ci wàllu baayam dafa am ay maam nijaayi De Gaulle ak waa askanam lu mu tudd moo Diouf léegi la ñu nuyoo ana mu moo Diouf waaw so sama sama waaye bu yàgg yàgg yàgg dañoo gëj a gis récolte lool ak juma ak ak ñi ñu àndal boo limee rek da ngay fàtte kon loolu yëpp dañ koy boole xoojaat waaw maa ngi ñëw ci ñoom ñii kenn du leen fàtte alxuraan waaw boo nee maam Cheikh Ibrahima tudd nga wilaaya tudd nga xabbaaniya tudd nga alxuraan moo waral waa alxuraan ji nga xam ne li ñu doon jàng léegi bu ñu dandoo léegi njabootu maam Cheikh ñoo toog fii wàcce ko kon defal nañu loo xam ne lii ñun ngeen ko defal yal na leen yàlla fay waaye boo ne Cheikh Yérim Ndoumbaat nee nga ah Cheikh na Cheikh Saad Bou ana Cheikh na Cheikh Saad Bou mooy ki fii Sénégal maa ngi dem Sénégal waaye bala may egg sama barke bi ma yóbbu yow yàlla xëppal ma ko Sénégal Sénégal barke am mille huit cent soixante douze waaw bi muy am vingt quatre ans à de vingt quatre ans déglu leen ñaar fukk ak ñeent góoru yàlla fël mille huit cent soixante douze ñëw Sénégal xeet jébbalu ci moom xam nga lu tax boobu sëriñ si nga xam ni moom la ñu yàlla baaxee ci ñoom ñëpp di ay ponkal feeñagul boobu maam Maodo feeñagul maam Borom Touba feeñagul maam Abdoulaye Niass feeñagul te boobu Cheikh Mal Fouti dem na. Cheikh na Cheikh Saad Bou mu xëy dugg si Sénégal nag ci ñaar fukk at ak ñeentam yooyu waaye day di ñaar fukk ak at ak ñeent yoo xam ne kenn mënu ndax xam-xam bu bari ba kenn mënu koo càmbar ndax wilaya ga googu nga xam ne amul fenn doo ko gis fenn fenn fenn fenn lii da ngeen koy déglu du waxi kuy fer firnde bi mooy lan dafa ñëw rekk ñii ci sunu maam yi mu jot leen a gis def leen di wàll yu ñii gisagul ak ñoom def leen di wàll yu fekk leen xamuñu araf mu duy leen ba ñu fekk dell ak xam-xam koy cheikh na cheikh Sakku kooku moo jur cheikh na cheikh Talib Bouya mu jur cheikh na Faye ñu naan ko cheikh na cheikh Sakku mais cheikh na junior Faye en arabe signifie le de Tufl le Tufl est le garçon en arabe le diminutif est Tufayl comme moom dañ ko tuddee maamam na cheikh Sakku ni mu génn ni mu ni cheikh na cheikh Saad bu dikk àddina la dikk àddina cheikh na cheikh Saad bu cheikh la saadu ak saadu moom it way juru kii ma dandante mu cheikh na cheikh Taalib bu ya cheikh la cheikh na cheikh Saad bu la tudd mu am cheikh bu tudd saadu ñoom ñaar ñëpp cheikh Taalib way jur leen waaw dama bari rek ñu ne ah gis ñu taal Sénégal ñu ñooy sëriñ yi yàlla tudd ci alquran ndax shérif yomb na de shérif bari na ala abbas shérif la ñu ala jaafar shérif la ñu ala aqil shérif la ñu yooyu yëpp ay ay ay famille quraysin yoo xam ne shérif la ñu waaye sharaf gi yàlla tudd ci alquran ni qul laa as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba shérif gi yàlla tudd ci alquran ni innamaa yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahirakum katira mooy sëtu rasulullah ñoo ngi nii Cheikh Tariq Boye a ngi doomam Cheikh na Cheikh Sadboo ngi dégg Cheikh na Cheikh Tariq Boye a ngi mu Cheikh na Tufaan mu Cheikh Tariq Boye doomam ngi Cheikh na Cheikh Sadbu mu Cheikh Tariq Boye mii mu Cheikh na Cheikh Sadbu mu Cheikh Tariq Boye mu Cheikh na Cheikh Sadbu ma naan ko baroon wal abar ibnul abar ibnul abar ibnul abar baroon dugal sa bopp foo xamul de yàlla dalaa ñaagal tabaarakallah macha allah dalaa boole ponkal yërimu amruhu mina samaa'i xutbu rabbaani saahibu saxaayi seen maama ko wax. boo mu ko defee xutbu ba mu ko seexalee def ko xutbu bu bindu woon lii ñu ne ah, ah, ah ñii di soof dañuy soof rek waaye xutbu rabbaani seetal leen ma ci réew mi ban garab la yërimu da ko arabal na. gaa am na ñu naan yërim wa jëdeet. amul conjonction de coordination xarfa at boobu neew ci da koo arabal comme turu ceddo mu ni ko Yérimu te na ngeen jàpp ni après de changé turam tudde ko Ibrahim dégg ñu ne Cheikh Ibrahim Diop Cheikh na Cheikh sax da koo changé Yérimu amruhu min as-samaa'i qutbu rabbaani saahibu saxaa'i Cheikh na Cheikh sax bu ba mu ko seexalee seexal maam Cheikh Yérim dafa ni ko Yérim mii mbiram asamaan la ma jóge yàlla def na ko xutbu rabbaani waaw ku yëpp mer ku yóbbu kaas yàlla benn garaat rek la am di ko toppal kenn déedéet yàlla la mu la mu yor kenn ndax ba yaxluqu ma la taalamuuna yàlla ne ne j'ai créé ce que vous ne connaîtrez jamais seen maam eh, seen toogaay bi fii xoolal maa ngi dend ak ñoom ñëpp gën gi mbindeef xam mooy seen maam mooy gën nga mi ñëpp mu Seydina Mohamed Cheikh Taalib Bouye mi Cheikh na Cheikh Tufay Cheikh na Tufay la ko jur Cheikh Taalib Bouye Cheikh na Cheikh Saadbou Cheikh na Cheikh Ahmed Fadel Ndaamin Taalib Xiyaar Dieng Muxtaar Taalib Mohamed Taalib Ali Shamsuddin Yahya Kabir Kalkamiyu Sidi Mohamed Seydi Othman Adnan Ismailaan Isa Masoud Omar Yahya Xaasim Idris Al Asxar Idris Al Akbar Abdallah Kamil Xasan San Xasan Musanna Xasan Fatima bint Rasul Abdallahi dëgg Mouhamad dégg nga nga continué Abdallahi Abdul Muttalib Hachim Abdu Manaf Xusay Kila Murrata Kaab Luway Gaalib Fiil Maadi Nadr Kinaanata Xudaymata Mudirkata Ilias Mudar Nizar Maad Adnaan su ma mënoon a compter Alaaji Malik nee na bul dem ma incha allah Adnaanan fa taxsiboo qad jaa min alamin ah ah ah Cheikh na Cheikh Sarr boo teew. teew ci wetu kan Cheikh Yérim Ndumbaan ah ngir kan lii ñu uuf te tëddëgalu maam yi kenn du leen tudd noonu di demee noonu ay dara dogal fekkee nga ndey ji fekkee si lii xam fi yàlla dugal ah ndey ji nañu bëgg ndey mari fekkee si li fi ko yàlla dugal kii mu jur tey am na mag kii ma uf tey ñu fas ko yoonu jox tur magam xam nga jigéen nu mu tudd Cheikh Sarr eh digg waa kër Cheikh Ibrahima xaal bi yàgg na ci yéen ah booy ñang ah doomu aada ah, doomu allah samanu kumaan waaw borom jinne yi borom kayaaf yi borom roxaan yi waaw kay kii moo ko dama ni tey nag dafa ni ku yow de ala fekk lépp yow ala sàmm bi ma tudd ala ji sàmm bi ma tudd te muy baayu Cheikh Ana Seck mais Cheikh Adja Ana Seck